bu feeñee ci kaw suuf li fi tàmbalee ba ba muy dem daara wàllu la ab yonent la nituk yàlla la ak kum mën a doon bu feeñee ci kaw suuf ba ba muy dem daara lépp lu jëm ci tarbiyaam ak kum njàngam jigéen lañ ko dégg bu xasee ba juddu rek lépp na muy sole mbubb na may tëdde na muy jóge bu demee ba toll naw yi lekke bu mën a gut a lekk bu demee ba mën a lekke nan lay lekke ban loxo la war a lekke nan la war a tooge nan la war a waxe bu demee bay jàng ba mën a wax lam war a wax ak lam warut a wax ak nam war a comporté woo lépp muy tarbiye bi jëkk jigéen lañ ko dénk kon muy loo xam ne kon lu am solo la ñu joué it ci lislaam rôle boo xam ne Serigne Cheikhouna junju na ko kenn ku ne xam na ne eh, sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni e ki ko njëkk a nongul mooy am soxna Khadija ki njëkk a laxasaay jàppale ko ca njëlbéen ga ca métit wa ca tiis wa mooy soxna Khadija moo taxaw ànd ak moom ci lépp ci guddi ak bëccëg féete ko foo xam ne kenn féetewu ko fa woon xam ngeen ni ci bi woon yonent bi woote it woote bu génn këram ñi ko njëkk a wuy si jigéen ñi kenn jiituwu leen ca ba deret di njëkk a tuuru ci lislaam ngir défendre pas-pas ak jàppale yonent bi ci jigéen jigéen la muy soxna suma yetu mooy ki njëkka nekk shahida ci lislaam ci njëlbeenu islaam booba ngeen gis bi nga xamee ne soxna Xadija génn na àdduna it ba soxna Aïcha wuutu ko fa gis ngeen ko sës rëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne bu dee ci wàllu xam-xam ak jàng ci référence yi gën a rëy ci lislaam la ndax la nga xam ne soloo na ko ci ay addis kenn ci ñi sës rëkk ci yonente bi comme ni mu ci sëse woon muy góor muy jigéen ko soloo lu toll noonu tolluwut amut ba lu baree bari sax e tey ci saxaaba yi ci moom lañ daan gàggantikoo ci lu baree bari ngeen gis ko mel ni asma bint abi bakar siddiq taxawaayam ci njëlbeenu islaam rawatina ca guddik rañaan ga ak ca fan ya mu am ca xuntima moom yonent bi ak baayam ñuy dallu ak làqutu ba noon yi naagu ci ñoom fan yooyu yépp moo daan topp guddi togg laxasaayu topp guddi gi ak fitwa dem di leen ko yëpp foofa kon yàgg nañoo am taxawaay lool muy ñoo xam ne itam nag li yonent bi daan séddale ci jumtuwaay yi nga xam ne moom lañuy taxawoo ab lislaam di ci taxawoo aw askan te la ci jiitu di xam-xam kenn jiituwu leen ca wax naa leen soxna euh, Aïcha waaye jigéen ñëpp itam ñoom ak góor ñi ñoo ci yoram ab cër parce que jataay bi yonent bi daan jàngale muy daara ja daara ji dafa ëmban góor ñi ak jigéen ñi waaye mujj nag jigéen ñi sax am mbakkar feggu ndax comme dañoo am yeneen préoccupation ci seen kër ba am jataay yu bari yoo xam ne dañ ko daan wuute ba am lu bari lu leen daan lu leen daan rëcc lu ñu rate dañoo defan délégation ñëw ci yonent bi ne ko nag lu baree bari dañu rëcci ngir liggéey yi ñuy nekkee léeg-léeg ci biir kër gi bay wuutee lu bari say jataay yi waxtaan ak njàngale nu bëgg nag nga baaxe nu suñ jataay bopp boo xam ne nun dong nga cay jàngal nu boole koog lu mën a fekke nag ci jataayu góor yi ñu fekke ko yonent bi may leen loola loola kon yitte la waaye boo jógee ci foofu yi nga ñëwaat tey ci génération yi ci toppaat nga seet ku mel ni kii soxna Zeynab taxawaayam doomi soxna Fatima la bi ñu boomee magam Sidna Useynu ca Karbala ak lu bari ci ñoom àndalan fitwa moo ànd ak njaboot gi ñëpp ànd ak ñoom ñëw ñëw Égypte gàddaay ñëw taxaw fa samp fa daara wuuf njaboot gi ba tey boo demee Égypte quartier Zeyda Zeynab quartier yi gën a rëy la ak jumaam ak jàkkaam ak daaraam ba léegi ma nga fa soxna Nafisa ba tey jàkkaam ak daaraam ak jàngaleem sayidna imam Shafii bi mu gàddaayee ñëw Makka euh, ñëw euh, Égypte ñu ne sax ngërëm mu bees ma masabul jadid bokk na ca ki ko influencé soxna Nafisa ndax lu bari ci addis moo ko ko jàngal yoo xam ne gisu ko woon rabiatul adawiye kenn ku ne xam ne ko kenn du tudd tasawuful islam yi bii nga xam ne ci la mouridisme bokk boo waxee abdul xaadir jilaani wax abul yasil bustami wax abu abu abbasul mursi yi wax ibnu ataayilaay faw faw bala ngaa jàll wax rabiatul adawiya te jigéen la woon ci taxawaayam ci lislaam ak ci tasawuf waaye ba wàcc see nag comme ni ko sëriñ Cheikh naa waxee ba wàcc si fii ci senegal soxna astawalo daaraam ja daaraam ju rëy ja ca njàngalem alxuraan ma ak njàngalem xam-xam ma ak fit ak njàmbaar ja way juru soxna jaaratullahi kooku yi kuy tudd jigéen ak taxawaayam ci islaam fii ci Afrique faw nga tudd ko soxna jaaratullaahi nag fa tabaarakallaahu ni ko sëñ seexu naa waxe lépp daje ci moom moo tax nag ah, référence yooyu tey muy soxna jaara ni ko sëñ sëñ eh, eh, seexu naa waxe lépp rek lépp loo xam ne lu ñuy taamu ci jigéen ci digganteem ak boroomam jigéen digganteem ak boroom këram jigéen diggante ak këram ak ñim nekkal ci biir kër gi mu ci surga ya ak ñam fa nekkal ci ay jigéen ak jigéen ak i dëkkandoom ak jigéen ci biir société bi mu nekk loolu lépp taxawaay ba ca soxna jaara taxawan maanaa taxawaay exemplaire la boo xam ne modèle la boo xam ne tey Sénégal gii Sénégal gii ki bokk ci yoonu murit ak ki bokk ci yoonu murit ñëpp nangul nañ ne soxna jaara mooy modèlu jigéen ñi bu ñuy wax modèle jigéen ñi ñépp rek soxna jaara la ñuy dem kon nag kooku tey bu ñuy wax ndono li kon loolu mooy baasu ndonol yoonu murit waaye nag xam ngeen ne Cheikh Al bi mu ñëwee dafa jaayante li ko indi mooy lan yeesal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bil mustafa walla lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnata al ara wa inni ahmadu diinun siwaa islaami i laa yuhmadu inda al ilaahi wa bihi nujaddidu baada salaatin laa tasuul bil aali wa sahbil odool wa biya jaddidi sabil sabil bila adan aw alami kon engagement ak liggéeyu xaadim rasul lépp mooy yeesalaat sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nag yi ñu wax yépp ci gannaaw ci taxawaayu yonent bi ak akub tarbiyaam akub njàngaleem ak ya ca aju lépp ba lislaam taxaw bi seexal xadim ñëw dafa fekk bu doon ab dëkk mu mel ni gent na comme ni mu ko waxee kaada turaka rasmi daarin xat xafa fi za zamani li mu diil onafa lu ci lu ci nekk lu nekk rek ñu sànni ko ca àll ba nam daan jàngale nam daan yare nam daan tarbiyee yitte jim aman ci defar jigéen defar góor defar mag defar ndaw ci jàngal ko ba mu xam li mu war a xam yar ko ba mu mel ni mu war a mel mu amal njariñ diineem amal njariñ këram ak njabootam waaye amal njariñ aw askanam muy ab ab société loolu lépp tey dañ ko sànni woon sàggane ko wan ko gannaaw Cheikh Al nag ñëw di ko yeesal kon bu koy yeesal kon fa yonent bi tàmbalee woon fa lay tàmbalee lu muy tàmbalee ci njabootu boppam gi kon liggéeyu xaadim rasul ci wàllu jigéen mi ngi tàmbalee ci njabootu boppam gi muy njim njëkk a dëkkoo xam ngeen ne eh, lu nit ki gàtt gàtt rekk ab ak ak dégg wala xam ci biir histoire yoonu murit ci njëlbeenug yoonu murit moom ak njëlbeenug islaam ñooyam ci metti lool ni metti woon ci yonent bi ak fitna ya ak jafe-jafe ya ak tartar ya fu nekk rek ñuy yàq ak lu yàq bàyyi koo fa ak luy gàllankoor ak ñuy gàllankoor noonu la amee woon ci yoonu murit bi ñu koy sos Seexul Xadiim dëkk bi nu nekk di Tuubaa bi muy gàddaayee Mbakke Bawol sanc Daaru Salaam jóge fa sanc fii di Tuubaa njëlbéenu Tuubaa muy lim fi am toll ci juróom-ñaari at metti woon na lool waaye nag fa tabaarakallaahu sunu ñaari maam ya soxna Aminta Lo soxna Awa Bousso ñuy ñoo xam ne taxawaay ba Xadiija yoroon ak Aysa moom lañ yor ci kanam Seexal Xadiim waaye sëriñ bi it nag taxawaay bam yonent bi aman ci maanaam Xadiija ak soxna Aysa ak ña topp ci moom ñoom it moom la am ci ñoom ndax xoo anfusakum wa ahlikum naara def itte ci tarbiyaam aku defaram mu tàmbalee ko ci ñoom ñoo ñu tey kenn ku ci nekk ci néegu doom yi soxna bu mag nga bàyyi ko lu bari loo fa war a xam jàngal nañ la ko lu jiitu ngay jëw ci moom lu bari ci noo war a mérite lu ci bari def nañ ko ci waaye bi Seexal Xadim ñëwee dafa reprendre lépp kenn ku ci nekk lu mu fekkan ci yow ci ak xam mu dolli ko lu mu fekkan ci yow ci aw melokaan ak tarbiya mu delluwaat dolli ko ca dolliwaat seen xam-xam waat leen surtout nag ci waajalaat leen ci li nga xam ne moom la sumb te war koo ànd ak ñoom foofu la tàmbalee liggéey bi ba ñoom ñëpp ñu nekk model ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu jàng ba xam lañu war a xam yaru ba mel ni war a mel jaamu yàlla lool ba xeeb ci kuñ mën a doon waaye wëlbatiku nag la nga xam ne mooy seen war warugar nekk seen taxawaay ci biir kër ga ci pegg xaadima rasul ci taxawaayu jigéen it ñu di ko def ba mu mat sëkk ba mu ca jógee nag lu ñu mu ca teg sëñ seexu naa wax na ko léegi juññu na ko léegi muy njabootu boppam xam ngeen ne doomam yi mu njëkk am muy soxna Fatima ñu gën koo xam ci soxna Faati Ja ak soxna astu mbàkke mbàkke kajoor muy ñoom la njëkk am kenn ki mi ngi feeñe mbàkke kajoor kenn ki feeñe pataar waaye ñoom ñëpp sëriñ bi moo saytu seenum njàng moo leen jàngal alquran ba ñu wattu alquran mokkal ko rafetal ko mu jàngal leen xam-xam ba li ñu war a jàng lépp ñu xam ko mu wëlbatiku yar leen tarbiye leen tarbiya islamiye bu mat sëkk ndax loolu nag mooy baas bi ci boppam waaye wëlbatiku it nag la aju ca liggéeyub jigéen ak nekkin wi jigéen war a nekkee ci kiit mu waxit seeni wayjur ñu def yitte ci def ko ci ñoom dañ leen jàngal yar leen jàngal leen liggéeyub jigéen tokki leen ci waaye loolu lépp nag ba ko sëriñ bi tàmbalee muy dox ba yàlla dogal gàllankoor gi ñëw génn dem Ghana euh, Gabon def fa la mu fa def juróom-ñetti at yu manqué tuuti dellusi def fi daanaka lu toll ci at rek 1912 la dellu si 1913 ñu yóbbuwaat ko gànnaar mu nekk fa ba 1907 ñu indi ko waat Thièyène mu doog a dellu waat Sénégal waaye bi mu agsee Thièyène rek daal tàmbalewaat tarbiya ba histoire wax nañu ne soxna Fatima ak soxna Fati Mbakke euh, soxna Astu Mbakke euh, Astu Mbakke Mbakke Kajoor ak Sëriñ ma sàmba seen wayjur ak mu Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadal ak sëñ mu yi ñoom ñëpp seen tarbiya sëriñ bi ci yéen la ko defee fa la tarbiya soxna Fat ja ñoom kenn nim tarbiya ñi nga xam ne mooy euh, magam yooyu ak wayjuram woowu di Sëriñ ma Masamba bi ñu noppee itam foofa la tàmbalee li nga xam ne particularité la ci yoonu murid te maa ngi koy wax sous contrôle sëñ Cheikhouna ak borom xam-xam yépp ñu jàng muy loo xam ne nag néew na maanaam foo ko gisee non seulement waxuma sax ci Sénégal waaye ci faneen muy ni nga xam ne noonu la ñuy responsabiliser jigéen ci wàllu jàngale ak yar ak tarbiya loolu ni mu amee ci biir yoonu murit man de xamaguma yëgaguma fu mu amee noonu te moo di Cheikh Al ni mu doon def ku mu noppi ci góor ñi ci jàngal la ba nga war a xam ni nga war a xam mu tarbiya ba nga mel ni nga war a mel mu def ci yow lu tax nga ma am xam-xam boo mën a jàngale waaye am melokaan woo mën a defare nit defar la ba nga defaru mu def ci yow lu tax nga mën a defare mu wëlbatiku nag jël ñu war a defaru jox la ko ngir nga defar leen ni mu ko daan defee góor ñi ni la ko daan defe jigéen ñi seexu naa wax na ko léegi soxna faatimatu daara la yoroon soxna astu mbàkke mbàkke kajoor daara la yoroon ñuy jàngale alxuraan donga ya fa nekk muy donga yu jigéen yi di jàng alxuraan di mokkal di ko bind mbind mu rafet ay kaamil ni ko góor ñuy bindee di leen jàngal xam-xam waaye di leen tarbiye rek ci ak taalube ak ci diine islaam tarbiye leen ci jaamu yàlla lool waxuma jaamu yàllay farata waaye jaamu yàllay naafila sax ak toog di sikkar di wér di sax dañ ca tarbiye noona ñañ yor muy saa ya waaye di leen tarbiye ci liggéeyu kër ak nekkiiru jigéen ci biir foyer ñoom ñépp ay daara lañ yoroon waaye bi sëriñ bi ñëwee nag njaareem foofu nag moom laay wax li arab di wax asulu dahabi yi mooy njaareem nag ndax xam ngeen ne sëriñ bi bi mu wootee woote bi gis ngeen ko tuubaa gi mu gën a yàgg diggante bi juróom-ñaari at li ci des lépp amul fenn istiqraar noon yi fu ne mais bi ñëwee nag Touba euh, njaarim am fa lam fa am muy fukki at ak juróom benn yu manqué tuuti 1912 ba 1927 ah foofa nag fa la taxawale nag dëgg dëgg nag li nga xam ne moo nekkan lépp daje na ndax li mu doon liggéeyal boromam lépp ak rasulullahi lépp noppi na lañ ko cay faye lépp it faye nañ ko ca ba dara di sut nag lu may li nga xam ne moom la sumbat nag ci wàllu defar ñoo xam ne dañuy defare te ba mu nekkee ca liggéey ba it bàyyee woon na ko ñoo xam ne ñoo ko doon def ndax waxtu wi nga xamee ne lu jiit sax muy génn bi mu ñëwee ba tàmbalee ñëw Tuubaa rek ba tàmbali nag liggéey bi nag ak yan bi nag ba nga xam ne tey e, tombe na ak mu defar ñoo xam ne mën nañ ko wuutu ca lam njëlbéen woon ak soxna Fatou ñoom dafa daldi jël loola jox leen muy sëñ Abdourahmane la daal di jël féetale lu jëm ci njàngale moom doon jàngal soxna Faat Ja ñoom mu continuer moom it di jàngal ndaw yu góor yi ak ndaw yu jigéen yi ba ñu toppaat soxna Faat Ja ñoom ñëpp te tolloon ci jàng muy soxna May Kubra ñoom ak ñi ñëwaat ñëpp tey ci daara jooju seen diggante ak seen baay Cheikh Ibra Faty kii ci njàngum alxuraan mi kii ci njàngum xam-xam mi waaye bi mu ñëwaatee njaareem nag dafa jëlaat lépp samp fa njaareem mu nekk foyer boo xam ne mën nañu wax ne complexe la woon boo xam ne lépp fa nekk ndax ci wàllu njàngale njàng mooy asaas toujours ndax sëriñ bii li mu nekk njaareem lépp dafa dekkalaat daara ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon muy daara ju amul daa waaye xaala rasulullahi joo dégg ca la génne muy daara joo xam ne amul distinction góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp a cay jariñu ndax méthode bi nga xam ne moom la indi pour jàngal nit ñi ñépp a ca mën a jariñu ki fer ijji ki feru ijji sax ñoo ca yem moom la delloo si siwaat muy ca tombam ya ca rëdd ca rëddam ya di wax ak ñoom ci làkk wala fu leer nañ ñi ñépp di ko dégg muy rëdd di tomb la aju seen pas-pas la aju seeni eh, ponki eh, lislaam ak la aju seen jikko ak seen melokaan ak la aju seen taalibe ak la aju seen rapport muy ni war a nekkee nekkin wu dëppoo ak ni ko islam bëggee lépp sëriñ bi mësu cee jénn lu dul ci fan yu néew yi muy nekk ci xalwatu yi ci des yëpp bis bu nekk mu joxe bind waaye eh, la dalan soxna yi yenn jamonante war yonent bi dafa dalaat waa barsàq ak soxna yi dafa am benn bis ñu ñëw ci sëriñ bi ne ko ah am ku ñu yónni ñeen ñu ne ñu soxna Aminta Jobe la ñenn ñu soxna ñenn ñu ne soxna Astu Bàkke Njaxat moom la jigéen ñi yebal ñëw ne ko ah ñun kat dafa amal lu ñu doon sàkku yoo bëggan daal suñu jataayu bopp boo xam ne rekk waxuma ñun waaye ñi nga xam ne sax ay magi taalibe lañ tey jigéen danañ ci mën a ñëw di euh, xamlu mu daldi sàkk kees goo xam ne fa wax ñu di fa daje waxal jox la di ay heure yoo xam ne waxtu wu ne bu agsee ñoom ñépp di soxna yi nekk ci biir kër ga ak ña toll ci jàng ci ay saa bàjjan ak soxnay seex su mag si nga xam ne dañoo gàddaayan fekk sëriñ bi njaareem ak seenu njaboot ñoom ñépp ñu ñëw ci kees gi sëriñ bi di leen jàngal ni muy doon jàngale ni muy jàngale góor ñi dafa leen formation waaye formation yooyu yëpp nag la ca yéeme mooy bi loolu àggee nga xam ne ñoom ñëpp dañ leen di compléteel ndax ñoom ñëpp it fa tabaarakallaahu am na ñu àndaale woon ndax ay tànneef lañu waaye sëriñ bi nag dafa daal wëlbatiku ci ni ma doon wax ci responsabiliser leen soxna ya muy waa sax am na ci ñoo xam ne ñoom ñëpp ay daara lañ yor ci biir kër gi ci sa bàjjen yi ñu leen jox am na ci ñu boole woon jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam bokk na ci ñañ cay tudd soxna faati jaxate way juru sëriñ saalimu ak soxna aminta amar di bi nekk ci kër ga ak soxna say mbakke ñooñu ñaari ñaari fànn yooyu lañ boole jàngale alxuraan ak jàngale xam-xamu diine ci biir kër gi am ñoo xam ne nag ñeneen ña ci des ñëpp nag ñoom ñëpp nag dañ doon jàngale mu alxuraan waaye nag am lu ñuy xaa wax xaasimul mustarak lu leen boole loo xam ne ñoom ñëpp nag ñoo ko bokkan mooy ñañ leen jox ñuy ay saa bajjan yoo xam ne doomi taalibe yu bëgg seeni doom jub te sell ñoo leen ko jox ngir ñu war leen a jàngal bañ xam ne ñu war a xam ci seeni farata waaye tàggat leen ci jaamu yàlla waaye yar leen def ci ñoom jikko ak melokaanu jigéeni jullit waaye jàngal leen liggéey itam ba buñ demee kër duñ sonn loola moo tax ñu indi leen fa loola nag ñu ñëpp ñoo ko bokkan di jàngale di tërbiye di yar di yar jigéen ñi ci liggéeyu jigéen muy togg ak fóot ak paase ak li nga xam ne mooy entretien kër gi waaye li yéeme mooy sëñ bi yemut foofu def daf caa dolli na leen gannaaw loolu la ñu doon def tàggat ci jaamu yàlla gu méttee métti daf caa boole de leen nag as gorkat su góorut ci dara mën naa jaay ngorom walla diineem wuti lu mu góor kon nag gannaaw lii nga xam ne moo jiitu tey liggéey bi nag kenn ku nekk na seet lam ca mën a bokk boole ko ca ca loo xam ne du ko yàqal dara ci jaamu yàllaam du ko yàqal dara ci liggéey bii mu jiital te bëgg ngeen jiital ko muy jàngale ak yar ñi ñu leen jox waaye dana ca mën a amee lu tuut lu muy maja faje soxlaam yëmante ñàkk ah muy liggéey kenn ku nekk nag na seet la mën ca loola am ñoo xam ne ñoom ci wàllu ràbb ak ràbb lu ay sor dañoo jël ay ay ay ràbbkat lañ jël ñu nekk ci bitti kër ga nag kër ga góor du fa ne di defar ay sor di indi sa yi di ko boole ba garaamu bi rabal yi ngeen gis suñ kilifa yu baax yi di sol ak kilifa yu jigéen yi ca loola la daan bàyyi ko am ñoo xam ne ñoom suub suub ca lañ féete woon dañuy jënd ay piis yónnee ci dëkk ba ñu jënd leen ay piis yi coton piir bu weex ñu tagg ko ay coupon di ko suub ay palmaan ak rombal ak baxa góor ñi seex si ak kilifa yoon wi ñëpp di ñëw di ko jënd ci jom garaam bu bi sam euh, turki njaareem yi nga daan dégg turki njaareem xaftaan yi njaareem yooyu yëpp garaam bu buyee loolu lépp ca tiis yooyu nga xam ne soxna yi ñoo ko daan indi suub ko palmaan baxa ak rombal ca loolu daan jóge mu am motifu góor ak motifu jigéen motifu jigéen bi mooy bi ñuy takk nga xam ne dem nañ boo xam ne gëstukat yi wax nañ ne cinquante cinq pour cent ci li waa njaareem daan sol ak kilifa yoon yi foofu ca biir kër gi laan jógee seetal loolu waaye yëmutoon ci loola am ñoo xam ne ci lii xew léegi muy transformation produit alimentaire ca lañ ca lañ askanoon parce que saako yi new yi day ñëw saako yu sump yi day ñëw sëpp ci variété sëb bépp di ñëw ak wëttéen bi ñu di ko transformé ci wàllu huile ñetti yëf lañ ci daan jëfandikoo muy diw sump diw saalub new muy saal bi ñuy wax saalub joxoy diw goo xam ne ci coton ci ci diw buy buy daanaka man daaw laa la laa ko laa ko la wër naa ko fenn fër daaw lañ ma ko doog a andil ca kër ga kër ga diw buy buy saalub buy bi ci boppam te buy feebar bi gën a kii ci lépp lu aju ci yax bi buy ci gën a gaaw muy muy diw bi ci biir kër gi dañ ko daan kii coton muy diw boobu ñuy wax koraay di ko defee laaxu caaxaan dañ ko daan transformé foofu génn diw gi moom itam foofu ci biir kër ga soxna yi boole ko variété bépp parce que booba variété bi dafa bari ay dugub du suuna rek ak ak ak saaño waaye xeeti euh, ak dugub ak saaño mbokk waaye xeeti dugub yi ay feelaak tëñëg tiñ ak baseeg yooyu yëpp daf doon am mais yëpp variété booba dañ ko daan defar ci biir kër gi parce que booba ceeb amutoon waaye nañ ko daan defaree moo dàqan mag ña ko fekkee woon dañ la wax yëmutoon ak ceeb muy lu mel ni cere yi ngëm ak lu mel noonu yooyu yëpp ñu ko def muy ci wàllu lan ci wàllu kon dëgg yi waaye loolu tax ba eh, li tax nga xam ne sëriñ bi lépp la jàngale am kenn ci ñoom muy sunu maam moom lañ tuddee sunu way jur wu jigéen muy soxna Faati Xujje way juru soxna benn gaabu mii xam nga gaabu la dekkan moom am benn bis bu ñëw njaareem siyaare sëñ bi fekk bokkam yi ñoom li ñuy yëngutu mu dem bay waaje dem ne sëriñ bi ah man kat sama bokk yii yëngutu bi ñuy yëngutu kët te de ci ndigal lañ ko kee kat su ma aman sañ-sañ kat maanaa di def lu mel noonu fee cëngaabu bu ma delloo waaye nag su ma seen yaa may tànnal ni nga leen tànnale sëriñ bi ne ko baax na bu subaa ci waxtu wii na nga dellu si ba waxtu wa dellu see mu daal di yëkkati mbuusum xaalisu nguur du jox ko ne ko boo demee na nga ko xaaj ci digg bi benn xaaj bi na nga ko jënde ay jur gu gàtt buy ay bëy ak i xar ak i ganaar li ci des na nga ko jënde ay band suubu wut nganji wut ñu lay ràbbal ak ñu lay suubal nga boole yaar yii lii moo dëppoo ak liggéeyu jigéen te bu mu la yàqal dara nag ca la nga doon def muy jàngale ma ak yar ñañ la jox te ci wàllu yàlla loo ca mën loo ca am nag boo demee ba liggéey ci ba am ca tono na nga téye tono ja liggéey ca te delloo si ma day ja seetal ma loolu moo mu jàngale investissement soxna si at la ko def am ca tono ju mën a liggéey dellu siwaat jox ko di andil ko sëñ bi sëñ bi ne ko dama la doon wan aw yoon rek waaye mën nga koo delloo seetal seetal ñooña loo loo ba liggéey nga seet ne muy loolu mooy waa barsàq yi waaye nga seet doomi boppam yi soxna Fat Ja sëriñ seexu naa wax na la ko école la woon mën nañoo wax ne rakkam yëpp ñu ci bari gannaaw buñ jàngee ca daara yi suñ daam abdourahman wala jeneen daara yi seenu tarbiye moom soxna see ko yoroon tarbiye leen ci wàll yëpp waaye ñoom ñëpp dañoo nekkan ay jàngalekat nekk ay tërbiyekat kenn ku ci nekk loole ñu doon def ca barsàq seeni wayjur doon ko def moom la ñu continuer ñu ñëwaatee di ko def mën nga jël koo xam ne moom moom it exception la gannaaw boo xam ne xaasimul mustarak ñoom lépp lii ñoo ko bokk jàngale ak yar nit ki ci wàllu Eh, li nga xam ne mooy liggéey ak comportement muy ku mel ne soxna Muslimatu Mbakke moom ci wàllu transformation àggan na ci foo xam ne variété bi ci wàllu sëb xam nga sëb dafa am sëbu njësiwu am wolet am bàyyi ngañ am waaraami jee ak yeneen yeneen sëb yu varié ni nga xam ne dugub tam ne la amee yooyu ma waxan mais yooyu yëpp tey da ko doon transformé di ko composé di ko boole ba ci wàllu cere couscous ci boppam am na juróom-ñaari at yim fi mujj gendarmerie nationale maanaa moom lañu amalan contrat boo xam ne moo leen doon fournir couscous cere dem ba benn société allemande la ñëw seet ci liggéey bi yéem transformation bi muy def mu gis ne lii nag fokk ñu dugal ci loxo mu waxtaan ak moom ne ko dama bëgg daal ñu jéem a taxawal benn fabrique fii boo xam ne ñun dañ la mën a indil matériel bépp pour lii ngay def emballage bi ci war ak ni ñu ko war a conserver ba mu mën a am ay attu yàqu ñu mën ko yóbbu bitim réew ndax lii am na njariñ lool lool fokk ñu jàppale la ci ba mu ànd d'accord ak ñoom ba këram gu réy gii ngeen gisal mu nekk ci ay nu projet boobu lool la woon waaye bis bu nekk daana génn e- e- Euh, soxna yi ma yi ma ci loon gëstul muy yoral leen nee amut benn bis boo xam ne ci yooyu mu doon composé du yem rek ci composé ko nii rek ñu ne ko ci déedéet bis benn bu ci nekk lu mu ca composé da koy dicté ñu def ci benn plat ñu essayé nga xam ne bis bu nekk ñaari plat li nga xam ne créé na ko ci ay plat yoo xam ne tey buñ ko jariñoon tey ëpp na téeméer parce que autosuffisance bii moom da koo teel na gëm ne moo war a am teel la ca gën a yéeme moom daawut dekk lu muy jëndi déedéet moo ko daan bay tooli sëb ya tooli gerte ya tooli dugub ya suñ Moussa nettali na ma ne booba tracteur amul dafa mujj ba xeeb fos yi jënd ab sib seet benn tëgg menuisier métallique mu defal ko benn fer ca gannaaw boo xam ne juróom benn machine sib bi mën na ko yor pour mën a bay lu bari loo xam ne da koy bay wala bëti ko di ko transformé waat seetal loola tey ba mu koy def ci yooyu jamono te lépp nag mu dugal ko ci kii waaye eh, bu ñu delloo dafa am loo xam ne dañ koo dundal waxan jëlale bala ñuy dellu siwaat fii dañ ko dañ koo tëbante mu am solo parce que ci point yi ñu doon wax la muy ci wàllu xitma muy waa barsàq ya liggéey boobee ñu doon def di jàbboole xitma muy liggéey bi ñuy liggéeyal muy lépp lu yoon yoonu mu soxlawoo te doole di ko def wala alal di ko def kenn mënu leen ci woon sama maam soxna Soda Syll mook sox Cheikh Mouhamadul Bachir ñoo bokk soxna Faati Bëdu Maam sëñ Mirina Silla ko jur waaye mook sëñ Mouhamadul Bachir ñoo bokk soxna Faati Bëdu Maam dafa bokk ci ñi nga xam ne ci bëkki néegi sëriñ bi ndax kër sëriñ bi e góor daaw daaw fa ji kër jigéen de góor daaw fa xànd loolu bokk na ci ndono li nga xam ne lu ñu bëgg a jàngale fii tey la njabootu sëriñ bi goog boppam gi deme ni sëriñ saaliwu sëriñ abdul ahad sëriñ abdul samad buñ leen masaa woo ci waxtu wi nekkee ca daara ji di jàng bu ñu waree gisee ak seeni wayjur sëriñ bi day yónnee ca seeni wayjur ci wenn waxtu ñëw gisee ak ñoom waaye kenn ci sax li nga koy sañ-sañ sa tànk du jaar foofa loolu moo taxan et comme day war a am diggante bi ñu fay jaar soxna Soda Syll moomu ci ña fa doon maanaa ci ci ci jamono yam fay nekk ci ñim ca bëkk néeg yooyu daan jaar ci diggante boobu la moo daan toj it sukkar peñ sukkar sukkar si soxna sooda e, mooy maam maami suñ e, koso moom suñ muntaxaa yi mooy jur soxna mariam mu e, moom suñ muntaxaa mi jur suñ suñ maam Cerno mii wan na ma liggéey boo xam ne ci toj sukkarus bekk si nee na dafa am benn bis Sëriñ Isaa Jenn ñëw bi ñuy tabax jumaay Njaaréem ne ko ah jigéen ñi kat dañoo wax ne ndax ba ñuy tàmbali liggéey bi ci jumaay Njaaréem ba ca dit ak juróom-ñett wa sas wuñ toppi wu ne ci alal def jigéen ña ca barsàq kenn du leen ca jiitu kenn du leen ca man soxna Aminta Amar moo ma waxal boppam ci gëstu yu ma doon def ne ba ma ne yam fay nekk ne tam xarit la ñëpp daan indi seeni sas nee na bi ñu waxee nit ak juróom-ñett kenn ci ñoom xalaatu di dem ci njàngum tam xarit ma lu dul sa nit ak juróom-ñett dafa mat nee na sa bàjjen yi nu yor sax comme kuñ sas de la xollil nangam ci gerte xollil nangam ci sëb nga xam ne ak leget lañ lay sase wala ñaari leget boo ko defee ba la nga cay defaat muy taran ñu de la neexal dangay ngay denc la nga ca amee muy ay tànk ba bu ba bu tamxarit jotee bu sa bàjjen joxee sax yow boo seetee la rek sa tax sax ñu ci bari sa bàjjen ñu tuut dañuy man a joxe nit ak juróom-ñett waaye yëmuñu woon cooca léegi nag loolu doyu leen ñu bëgg a barkeelu nag physiquement ca liggéey ba soxna Soore nee na ñu yabal eh, sëriñ Isa wax ko Serigne isaa moo doon taxawu jumaa ji mu ñëw wax ko Serigne bi Serigne bi ne waaw mën naa nekk de waaye nag jigéen ak góor ci benn barab. dafa mel ni sayu bopp ak sébub sawara bu ñu fa jàngare ngelaw fekk la fa leen fa te bu leen fa fekk ekk rek àdduna tukki ñoom it bu ñu fa nee góor ma fekk leen fa kon nag daamar yuy indi jumtuwaay yi nañu wàcceel jigéen ñi ci bëj gànnaar wàcceel góor ñi ci bëj saalum buñ bokk fu ñuy jële bu ñuy bokk fu ñuy fu nga seet kon taxawaay boobu nga xam ne moom lañ amoon ci wàll yëpp kon wax naa la ca njàng ma wax naa la ca njàngale ma wax naa la ca liggéey ba wax naa la ca xit ma ba itam mooy lépp lu ñuy joxe kenn du leen ca man lépp lu ñuy liggéey ci doole kenn du leen ca man ñu dellu siwaat ci soxna mos li ci njaboot gi kon soxna mos li taxaw loola ci benn exemple la ci loolee mu doon def ci wàllu jàngale liggéey waaye soxna mos dafa am leneen lu mu doon def loo xam ne tey ONG yi sax Sénégal dégg ko ci àgg ñu bari xamuñu ci wàllu sociale muy jigéen ñi seenum xel wàññeeku tey dox ci mbedd mi te nekk ay jàng wala ay jigéen yu toll ci sëy bañ ko leen saay-saay bu leen saay saaye dafa tax da leen daan récupérer récupérer indi leen ci biir kër gi boo leen ak mag ñu sang leen bañ seet wecc yëkkati yére yu bees teq jox leen intégré leen ñii ñu leen foofuloo ñii di leen di leen tàmbali defe lu liggéeyu ndaw di leen liggéeyu ndaw ba mujj daanaka sax dañuy mel ne ñu raag mën a jaxasoo ak nit ñi seet kuñ déggoon ñu may leen ko bi may def ay gëstu wax nañ ma ci ñoo xam ne tabaar la kàlla limal nañ ma ci ñoo xam ne seeni doom tey tabaar la wax nañu fañ nekk ca ndakaaru ñoo xam ne ca doom yi ñooñee seen xel kéen la waaye ñoo jur ñooñee tey ci ñi gën a tekk ci yoon wi lañu bokk seetal côté social boobu noonee it nag nala ko ñam jamonoon teel ci ay magam ci wàllu tarbiya soxna Mominatu soxna May Kubra soxna Ami Seex soxna Astu Gaawaan soxna May Suxra xoolal koo ci dem rek kàggu la waxuma la jàngale ak yar waaye taarif ay téere ci wolof yoo xam ne dañ cay jàngale jaamu yàlla ak nekkinu jigéen gis nga soxna moom yi la mu ca def ak soxna May ñaari soxna May yi. ay téere taalif ay téere ci làmmiñu wolof yoo xam ne tey maanaam ab yóbbal lay doon ci jigéen ñañu yor di ci jàngale waaye nga seetaat taxawaayu boo ko xamee ñoo ko dund man dund naa ko ci dans les années 70 soxna may suxraa mii ak soxna mbenn ngaabu étudiant murid yi tey tey nu ñu mel rek ci ak taalibe mën nañ koo delloo ci ñoom ñaar ñooñu ndax bi ñu riiree bamba ji ñàkk leen ba ñu riir wut ci yoon wi soxla woon nag ku leen xamal ak taalu bi ak ku leen ca toqi ku leen ca yar te ndakaaru lañu nekk yàlla dafa leen a defal taw fiixi soxna benn gaabu li ëpp ci noor bi ndakaaru la ko daan def ci usine benn tëli kër soxna astu njaay soxna may nekk sikaab bu ñu ñëwee agsi soxna yi dañ leen di joxal bind comme ni ko sëñ Tuubaa di leen wax ak taalibe mooy lan jàngal leen ak taalibe ci wax ak jëf ak defin ak pas-pas nan lañ koy wodde ak xas yi itam ya ca sëñ bi gën a la taamu ñu war koo jàng ak dañ ko dañ ko war a jànge ak yañ ca war a sàmmoon teel maa koy fàttali am na ci kuñ daan wax ndeysaan lam yaati Omar Malle ñooñu génération bu njëkk bi nga xam ne ñooy première étudiant daayira murid ak Saliou Mbuub ñoom ba cere is bu tarxe yi juddoo ñooña mën nañu wax ne seen tarbiye ci yoonu murit ñaar nii soxna mbenn gaabu ak soxna may ñoo ko yor lu ñu am rek tey ci loola mën nañ koo delloo ci ñoom te leen ci daan rax mooy seen doom muy soxna asta Mbàkke bu bu bu bu bu bu bu sëriñ baara moom itam ci Bidina muy rôle yoo xam ne kon dafa nekk rôle yu noobal yoo xam ne kon loolu mooy ndono li ndono li lañ wax nañ ko sàmm bala ngaa sàmm nag dangay xam